mu tàmbalee Fulku Machoun euh, fondation la boo xam ne mi ngi tënk mbooleem sotu sëñ Bachirou yi ñi nga xam ne ñoo sotu sëñ Bachirou ñu créé ko depuis 2007 di ko boobu léegi ñu ñuy doxal objectif bi nga xam ne moom mooy premier objectif bi mooy euh, dajale mbooleem njabootu sëñ Bachirou gi ci benn buum ñu ànd dundal njaboot gi dundal mbokk gi nga xam ne moom lañ moom lañ bokk. ginnaaw loolu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ànd sàmm li nga xam ne. mooy ndonal ndonal Cheikh Amadou Bachir muy ndonal lu yaatu loo xam ne responsabilité la boo xam ne diis na lool ci ci ku ko xam loolu mooy moo mooy li nga xam ne moom moo sos daayira bi ak li nga xam ne moo ko tax a jóg booba léegi ñu nekk si di dox euh, ku ne Cheikh Amadou Bachir tudd Porokhane Porokhane di dëkk boo xam ne di euh, sëñ Bachirou moom la ko suñ borom tëra suñ borom tëralee mu mu nekk fi di wettali soxna si boobu ba léegi di ko dundal ba mu mel nii tey euh, ci loolu comme képp kuy dundal képp koo xam ne sa yitte mooy dundal ndono Cheikhul Bachir kon yey na lu wax Porokhane nga nga nga teew fa euh, fësal fa sa yéene loolu moo ñu indi fii moo indi njaboot suñ Bachirou gi fii ñu wëyal li nga xam ne moom la suñuy maam bàyyi woon fii muy li nga xam ne mooy ndono Cheikhul Bachir dundal ko waaye nag lépp rek tënku ci liggéey Serigne Touba jaarale ko ci soxna soxna jaara ci loolu depuis ay années ci ginnaaw ñu tàmbale woon di ko di ko tàmbale tàmbale ko ci am ngontu xasida boo xam ne dañ ko doon def ci ay ay jotaay yoo xam ne dañ ko doon amal fii ci barab bi jaraay yoo xam ne jàngal faa ne xasida la doon woon ko ci loolu rek ñi dem muy màgg mu màgg ba yegg si fii tey mu nekk une ne boo xam ne journée bu bu bu boo xam ne ci ci ci suba gi ba ngoon gi lay doon euh, mu nekk journée culturelle boo xam ne day am ay programme yu wute yoo xam ne lépp rek du génn objectif bi mooy euh, sàmm na sëñ Bachir waaye feeñal li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne moo nekk si moo nekk si loolu moo moo moo tax ñu yesti si tey muy journée culturelle fondation Foulkoul Machoun journée bi nag mën a tënkoo ci ay jotaay ay conférence yu am solo. yoo xam ne tam comme niñ ko tàmbalee ci suba gi tey ci suba alxuraan ba noppi ci alxuraan yoo xam ne xale yi nga xam ne ñooy jàng ñooy jàng ci daaree daare daaree maam jaar ji ñoo ko doon ñoo ko doon taxawee euh, ku ne xam na ne fii daara jooju muy liggéey bu rëy boo xam ne meññit la ci euh, liggéey suñ Basiru euh, ak liggéey njaboot Cheikhul ba ci ci Poroxaan moom feeñal liggéey boobu moo tax ñu tàmbalee ko alxuraan nag ta jagleel ko waa daara ji loolu moo tax ñu tàmb bi ngeen ko tàmbalee nag ñu amal benn jotaayu conférence boo xam ne ku ne Poroxaan Euh, na soxna jaara kon lépp looy def nanga koy tàmbali soxna jaara lool moo tax première conférence bi ñu ñu ñu ñu ñu joglee soxna jaara ànd ci ak jigéen ñi ndax soxna jaara jigéen pour cëru jigéen ñi la cëru ñëpp la waaye jigéen ñi euh, euh, am nañ ci cër bu rëy rëy moo tax ñu tàmbalee ko ak jigéen ñi ànd ko ak jigéen raw royaax ñi nga xam ne ñoom ku ne xam na leen ñoom la sëriñ bi dénk lépp li xam-xam ci wàllu ci yoon wi ñoom it ñuy jàmbaar di taxaw ñu ànd ànd ko ak ñoom ñu ñu taxawee conférence boobu àndoon ci ak soxna maam jaara Sarr ak soxna Seyna Bulo ñu ah, ñëwoon teewal fi waa Rawdu Rayaahin euh, ci njiital sëñ Ahmadou ba bi nga xam ne moo ko jiite waaye jigéen ñi tamit soxna Mariam mu dem ñu àndoon ñoom ci conférence ba muy conférence bu am solo am solo thème bi nekkoon euh, les des enseignements tirés sur la vie et la l'œuvre de Soxna Jaara mooy ah, leçon yi nga xam ne mën nañ ko tirer jàngatee ci dundu Soxna Jaara war nañ fi ñi nga xam ne ñooy jàmbaari Soxna Jaara yi nga xam ne ku ne xam ne leen ci liggéey Soxna Jaara bi ñuy liggéey di di di saa su ne lépp loo xam ne dañ koy tudd Soxna Jaara ñi nekk ca ñoom lañ woowoon ñoom it Euh, jagleel leen benn plateau boo xam ne dañ doon feesal seen liggéey loolu moo moo moo moo toog plateau bi ci toppoon euh, ñu ñu ñu tey nag ñu woowoon ci fédération bi waa États-Unis ci njiital soxna Momy seen ak soxna ay Gueye ak it euh, fédération xidmatul xidmatu Maam Jaara bo suñ Mbàkke Madina moom it suñ Modou Niang teewaloon ko ak mbooloo mu takku ñoom ñu amal jotaay leeral Euh, seen seen liggéey ci ci ci ci ci ci ci bis bi ak seen liggéey ci soxna jaara de manière globale moo moo nekkoon conférence ginnaaw bi loolu it euh, am na ay documentaire yoo xam ne Cheikh Amadou Bachir dëj lañ ko def ñu jàllale nañ ko fi euh, am ak it ginnaaw loolu it gis ngeen ci ngoon ba léegi animation xasida yi ak i yi nga xam ne doon na fi am moom moo doon nekkoon di jàll ba léegi ci gis ngeen programme ci ci tënk loolu mooy li nga xam ne moo wundu wundu bis